champion Papa Sow ku ko xam xam ko diggante bi Moussa Dioum mu nekk champion ci parcelle ñu ñoom ñaar ñu bokk génération def noonu lu bari ñi lay jàll leen bokk di la wax inna lillahi wa inna ñu lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay di fay nuyu Sénégal yëpp di jaale Moussa Dioum dañ koy jaale Sénégal yëpp di ko jaale monde làmb di ko jaale waa Parcelles Assainies particulièrement ak famem ñu ngi koy jaale Moussa Dioum xam na ni deewee na ndaw waaye wax dëgg yàlla ginnaawam dara ñaaw ci Moussa waaye ñëpp la woon. kon damaan bi ma koy xam ba maa ngi def CM2 boobu Moussa jàng ba wàcc dem fekk ñoom Mathieu Pereira ñoom Ousa ñoom Lato ñoom Baboy Géej foofu loolu yàgg na boobu bu ñu amee ay 13 ans ci lay yem quoi kon sama xam moom ah Moussa Dioum yàgg na lool lool dëgg yàlla. ngeen bokk génération def loolu bari. ci mhm. làmb kan moo nekkoon Moussa Dioum. waaw Moussa Dioum benn phénomène la woon quoi nit ku baax la nag nit ku saf xorom foofu fu mu toog kenn du kenn kenn du ñëpp quoi nit ku la daal boo bëggee dégg dëgg quoi Moussa moom nit ku jàmm la nit ku baax la wax dëgg yàlla ah ñu ngi koy ñaan fu mu jëm daal yàlla na ko gënal fu mu jugee quoi. démb bi ñu la woowee wax la ne la Moussa génn àdduna lan nga yëg. waaw mbéyteel laa man Papa Gueye moom ma eh Moussa Dioum pour man dafa am combat sax quoi. moom ñu ngi saal quoi ma ne ko lu xew mu ne ma Moussa Dioum ma ne ko ah loolu la mu ne ma Moussa Dioum la ñuy tàggee quoi. bon loolu dafa yàq suñu entraînement yëpp dem wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ndax kenn foogul woon ni yëguñu man yëgu moon feebaram yëgu moon dara quoi dama jékki-jékki rek mu daal suñu kaw mais ñu ngi koy ñaanal daal fu mu jëm daal yàlla na ko gënal fu mu jógee lan moo la gën a a marqué ci moom loo xam ne dund nga ko loolu ko fàtte bu ngeen dund yéen ñaar waaw musaa Di moom nit ku baax la wax dëgg yàlla ku xewle ku mu yëg ni xewle nga sax dana ñëw sa xew ak lu mënti xew muy jàmm muy safaan ba nit ku baax la daal moom nit ku baax la daal mënta wees nit ku baax wax dëgg yàlla ñu koy ñaan yàlla ko yàlla fal cat cat ban ko jiit si bàmmeelam loolu ñu koy ñaan waaw waaw ñu ay jud lañ moom famille famille Moussa Dioum suñu famille la yaay Moussa Dioum suñu yaay la ay grand frère ñoom grand daam ñëpp suñu ay grand lañu wax dëgg yàlla benn famille la dañuy ñaan yàlla may ñu xolu muñ te may ñu leneen lu leneen lu ñuy ñaan quoi. taxawaay bi aussi bi lamb am gis daf ñoo daf ñuy lamb daf ñuy boole waaye war ñoo tàkkale. lamb daf ñuy boole ñoo tàkkale loolu sax ji da koy wan. képp ku xewle ci làmb rek moo xam moo xam safaan ba la moo xam bànneex la di nga gis monde lamb sooy wax dëgg yàlla lamb daal monde lamb daal mu ngi noonu quoi wax dëgg yàlla waaw beneen monde la quoi moment feebar bi yëpp déggante ngeen wala gisante ngeen ci. non yëguma feebaram yëguma ni Moussa Dioum wallaahi yëguma feebaram ba li ma ci am démb rek mooy eh Moussa Dioum man combat ñu ne ma. kaañu waaw waaw fan la ci am quoi man laa ci am waaw. na solo. ñu ngi leen jaajëfal di ànd ak yow ci tiis bi nga xamante ne dal na ci monde de la lutte muy génn àdduna Moussa Dioum nan nga ko yëgee ak yan témoignage nga ñu mën a defal ci Moussa. waaw jërëjëf ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi. di baalu ñëpp ak ci weeru koor gi di am tiis ak naqar waaye suñu borom moom kenn du xëccoog moom ndax programme yàlla moom du jaas programme doomu aadama mooy jaas képp fii képp ko koo fi yaakaar rek wala koo fi doon dégg rek boo àndeek nit dina yóbbu ba ne la fii la tëdd donc nag ñun ñëpp kenn du fi des waaye nag ñun parcelle am nañ tiis am nañ tiis am nañ metit ci nga xam ne mooy suñu rakk suñu xarit suñu àndandoo ñu defandoo lépp nag mu génn àdduna ñu koy jàll àdduna yëpp di ko jàll axlu làmb yëpp di ko jàll waa parcelle yëpp di ko jàll xarit rakam yi nga xam ne ñoom la nekkaloon man Moussa daan naa déggante ak moom tout le temps moom ànd nañ dem États-Unis boo nit boo ànd moom tukki rek mën ngaa seede ci moom as gor la nit la ku ku ku ku ku mën a wax lu baax ku mën a def lu baax nit la ku yaru nit la koo xam ne itam foo ko fekk kaf ak ree lañ ko xamee fexe na ba marqué empreinte ci histoire Parcelles Assainies fii ñu taxaw nii ñun fii la ñu fooyee fii lañu màggee mais Moussa ci li wër vingt six unités yi ak ñi fi dëkk ko ci waxal wallahi li muy seede ci Moussa Dioum mooy nit ku baax mun kaf mun ree donc yàlla na ko yàlla jéggali bakkaaram yàlla xaare ko àjjana maag Modou Lo ba léegi ñu ngi déggante ñoom ñu ngi ci armée li nii à l'instant même mu doon loo xam ne mën nañu wax ci moom ay anecdotes yu bari hmm. yu bari lu ñu débuté dem Pikine ànd ak baabo yi mu doonoon daanaan mën a bëre hmm. moo am seen bu ñu daan bëree nit ñi dañuy toog di ko seetaan loolu mu doon loo xam ni suma xol fees na mënu wax waaye li ma ciy wax rek mooy jeunesse senegal hmm. nañu bàyyi xel bis bi bis biñ lay tëral ci buntu jàkka ji naan ku ko ameloon bor da nga wax ak diw li ñuy jullee mooy yàlla na ko yàlla yërëm loolu la ñuy jullee nit te bu ñu seetloo euh, jamono ju ñu toll mooy jeunes yi mooy njagamaar yi muy saasumaan yi muy euh, jànq ji muy jéeg ji xale yi daal maanaam ñi nga xam ne ñoo yor tranche d'âge bi gën a baax ñu ngi dem dem bu bu bari loolu na dafa laaj taxaw seetlu ñu xoolaat suñu bopp suñu waxin ci réseaux sociaux yi suñu doxalin suñu defin. te ñu ñuy roy muy Serigne Touba ak maam El Hadj ak ñeneen ñëpp ñu ñuy roy mm. bi ñuy def li ñuy def boobu âge bi ñu amoon. ci ci du ñu woon ay mag ay trente ans la ñu amoon ba trent cinq an sëñ tubaab bi muy bind Masaalikul Jinaan boobu du woon mag maam Alaaji Malick bi muy doxal li muy doxal du woon mag Cheikh Oumar Foutiou bi muy dem Màkka du woon mag def na Màkka vingt quatre ans te ñooñu dañu taxawal de projet de société kenn musu ci saagante kenn musu ci waxante lu ñaaw kenn mun ci defante ba seen ba seen euh, euh, seen seen seen projet de société jeex ñu wuy ji yàlla dem àjjana donc ñun nag Sénégal war nañu xoolaat suñu bopp muy kilifa yi ci bis yi mel nii nag boo la ñu war a toog di def rétrospective suñu bopp di xoolaat. mooy ñun ñu seq ak lu làmb yéen ñi yor caméra yi lépp loo xam ne dégg ngeen ko ci lu bon dee leen ko dindi. dee leen fësal baax baax yi. parce que àdduna jeex na. àdduna jeex na bu bu léegi rek mun naa la tegal ay vocal yoo xam ne maam Moussa Dioum ñi ngi doon wax mi ngi mel ni jógewu fi woon donc ñu ngi koy ñaanal yàlla jéggal ko ay bakkaaram kon ni mu ko waxee woon Baye bërki dem ne ko gëj na ñoo déggante waaye maa ngi maag yow ba àjjana yàlla ñu yàlla boole ñu ñëpp ñu ñu dem àjjana ñu fi des yàlla bàyyi leen fi yàlla jéggal ko suuf Euh, jégal ko ay bàkkaaram oyofal suuf si kawam ñi ñu fa fekk tamit yàlla jégal leen seen i bàkkaar ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm kàddu ngeen mujjee déggante waaw ñun bu ñuy waxtaan bu ñu doon waxtaan bon bu ñu mujjee déggante ci weeru koor lañ ne lu nit di wax da ci wax ko loo xaq kaana muran mhm. ci waxu politique lañ doon wax mhm. mu mooy encouragé di encouragé Amadou Ba mhm. Matar Ba aussi dëggante nañ ci par message. moom tamit mu kii mu nax mu metti lu ko lool. mais Moussa lépp lu xew comme maam moom ak Baye Pël dañu am ay liens yu ñu liyee lépp lu am rek danañ ci diisoo mais nitu sutura la boo gisee lu ci bari nit bu ko seqeek nit bu génnee àdduna na ko denc yenn yi nga xam ne dañ ko doon échanger yenn vocal yi yenn wax yi nañ koy denc parce que loolu sutura la bu nit di génn àdduna ñuy uññi suturaam mm-hmm. waaw donc daal li may xamal daal suma xarit la woon su ma nit la woon nit ku baax lañ seen kër fii xam naa ko sama kër xam na ko xale yi muy àndal xam naa leen bu baax xam naa jomam fitam ñàmbaaram xam naa jubam xam naa dëggoom yàlla na ko yàlla fay loolu yóbbu ko àjjanal farosi li ma gën a marqué si moom bari na ay ay ay la yoo xam ne yu yuñ dund la en tant que jeune yoo xam ne tey bu boo ko waxee sax du bisu wax parce que dalay dal dana doon lu reetaanlu waaw damay fàttali jour bi ñuy dem mbappat Modou Lo di daan euh, Elton di daan les de di dëkk Balla Balla Gaye man maag méta ñu ne ko demal dëkk Balla Gaye ci babi bi nekk fii lañ ko fekk ñu ne dañuy dox ba kii parce que àdduna noonu la day dox ñun ñu dox ba case ba pour ut oto ñu fekk dajeeg moom ci kii bi ci babi bi muy babi foofu ñu ne ko nañ dem mbappat ba boobu ay une yi du matin mu ne ñu soluma dàll ay carax sol keroog Modou loo moo summi dàll yi mu soloon bagi jox ko ko ñu jël carax yi ñu dem mbappat ma Modou la ñu ngemb jour boobu ñun ñëpp ñu toog ñu ko jëlal diw jëlal diw mu daan ñëpp bi ñu demee ba yàlla def gars yi ñu war a jël saaku ceeb bi gars yi neen doo leen yóbbu saaku ceeb bi ñu tamit suñu xadar ak suñu trophée ñu ne suñu xadar rek ñu ne dañ koy jël gars yi dàq ji ñu nag biñ ñu dàq ji keroog dafa daw ba dàll yi toj ñu daje kaas bi fii ma fekk ko fi mag conke sil ndeysaan loolu bokk na ci lu ma marqué beneen bi aussi maa ngi bi Modou di préparé galaa bi nekk nañ ci àll mu woo ko mu woo Modou boobu moom mi ngi doon moom mbër kaamil la boobu galaa bi kenn amatu gudd ci defet waaye boobu talul boppam mi ngi tal Modou Lo wallaahi lu waaye wax dinga ko waxaat ëllëg di ko joxe ay tegtal naa ko defal lii demal fii demal fii ñaari affaire yooyu bokk na lu ma marqué ci moom beneen bi tamit bi ñu àndee voyage yi bokk na lu ma marqué ci moom ci animation ci nit la koo xam ne ku bëgg nit nit loo koo xam ku am ouverture d'esprit nit la koo xam ne jiitalul alal àdduna mm. waaw donc Moussa Dioum daal li mu ci mën a wax en grosso waa parcelle yëpp ñi ngi koy jàll Sénégal au nom des parcellois ñoo ngi ja ñoo ngi koy delloo njaal mi di wax rek ni ñi nga xam ne ñoom ñoo ko waroon ak ñi ko doon jàppale bu ñu fàtte yaayam bu ñu fàtte ay frère mm-hmm. di ñaanal ñëpp jàmm allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam jërë ngeen jëf ni sa mag la yaakaar naa démb bi ma la woowee wax téléphone sax munoo ko woon génn àdduna sa mag yan témoignage nga ñu ci mën a defal waa jili dañ koy jaale waa Sénégal yëpp di di leen ko jaale yéen ñëpp di ko jaale suñu bopp di ko jaale waa parcelle yëpp comme ni ko suñu grand xaarim waxee. Hmm. seede yi yëpp benn la te yëpp rafet na xaadim li muy wax man mën naa cee seede digganteem ak moom ak digganteem ak Baye Pël. Hmm. parce que amoon nañu affinité boo xamante ne ni amulu ko kenn parcelle. Hmm. li mu doon waxtaan ak xaadim li doon waxtaan ak Baye Pël xam naa si dara. man nag li ma waxoon rek lay waxaat jóge marqué na ma. lu may fàtte dafa am lu mu def si man mm. dafa am fu ma jëlee dafa am fu mu ma yóbbu génn ak àddunaam tiis na ma trop te metti na ma waaye gor génn àdduna mm. gor dem na mm. ku xam boppam dem na ku bëgg nit dem na ku bëggay nit dem na ku am sutura dem na ku bëggul kenn mer dem na barki alxuraan génn àddunaam ci lan la la fekk génn àddunaam wallaay su ma waxee sama digganteeg yàlla dem 18 heures dem 18 laa toog di ko waxtaanee ba ni may dem vingt 22 heures ñu may wax ne ma gaañu na kon xam nga ne kooku bu ñu la bu ñu la nee génn àdduna du la bett ndax xam naa fa mu nekkoon xam naa la ko fa yóbbu xam naa mettit bi mu doon daj. ma yàlla na ko yàlla yërëm te xëri ko àjjana. lan moo la gën ko dund ko fàtte. loolu du jeex chaque jour mu def loo xamante ne nii lu may remarqué la. loo xamante ne nii bu ma bu may bu may xool dama koy gis su may dox dama koy doxee su may dund dama koy dunde parce que ak ni muy dundee ak nit ñi man damay ànd ak moom ba mu yàgg may taxaw di ko seetlu ndax kii nit la ki ngay àndal. Mm-hmm. ak ni muy def ak nit ñi. Mm-hmm. bu ngeen jógewoon woon entraînement vingt une heures vingt trois heures ngeen di yegg ci kër gi parce que fu mu romb taxaw wax ak yow ku mu romb taxaw wax ak yow. Mm-hmm. ku mu jotteel xolam ma ko tooñ waaye du jikkoom. billaahi. jërëjëf ñu ngi koy jërëjëf ñu ngi koy jaale bu baax. waaw mais Cheikh maa lay siyaar maa ngi gépp waaw. ñu mais nouvelle bi comme ñu ko ñëpp ñëpp yële rek mu nekk nouvelle boo xam ne métti na trop puisque Moussa Diop daanaka moom sama xarit la woon bon mu ko daan tuusal nag. mu nekk sama partenaire ñu daan waxtaan lu bare bare bare kon tey soo yeewoo ñun la Moussa Dioum génn àdduna dina nekk affaire bu tiis bu metti bu doy koy naqarul nag bu baax a baax. Sénégalais yëpp xam la waaye ñoom ñëpp aussi nga bokkoon ak ñoom parcelle su ci ne nga daan ko tuusal ci bësam. Euh, tey yan souvenir ci nga xamante euh, mbër moo doon ànd di ko tuusal. kooku buñ la laaj ay souvenirs mënu ma wax lépp sax si Moussa Diouf léegi rek maa ngi waxtaan ak Tidiane Faye mi mu may fàttali ndeysaan buñ koy mujjee tout seul unité 6 lañ mujjee def répétition amul ay bàkk yu bees yoo xam ne dañ ko doon waaj di ko tëggal bon ñoom ay souvenirs yoo xam ne ñu bare bare bare bare bare ci moom muy nit ku baax ku laabir koo xam ni buggul kenn mer saa su ne lu lu bëggloo doomu aadama rek lay def ñu bari sax dañ doon toog di wax na Moussa Dioum yorul sax jikko mbër mm-hmm. ndax ndax xol bu laabir xam nga mën na def lu baax mën na wax lu baax di boole doomu aadama yi saa su ci yooyu lay dox kon ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom teeral ko ci àjjana yi gën a kawe ci baax Seydina Muhammad te am nañ ci yaakaar nag ndax weeru ci génn àdduna bon am nañ ci yaakaar bu baax yan kàddu ngay dénk ñi du leen wax ñu muñ rek. parce que àdduna lool la. bakkan bu nam dund rek dina ñam dee. kon loolu lu existe la. ma leen di ñaanal nag yàlla may leen xolu muñ ñu xam ne àdduna lii la lii rek lañ fi am waa di ñaan àdduna ñëpp nag ñu bàyyi xel nag ci njabootam ndax nekkoon na koo xam ne ku bëggoon njabootam la. mën na noo wax ne fekk na lu bari. ñu ngi lay nuyu di la la jàllale ñu bopp. maa ngi leen di siyaare ci weeru koor bi di leen vraiment euh, maanaam gërëm tamit ci li ngeen di maanaam véhiculer information yi. Euh, tey yéen ñëpp ngeen déplacé ñëw ci jëmm ji nga xam te moom moo ñu dëgg tey muy euh, muy Moussa Dioum. nga ko. xam naa ko parce que Ndiouga wax na léegi la personne man mbër mi laa gën a xam maa ngi garder en image. ba muy bëre ak Khadim Ndiaye je crois que c'était en 2008 face à face bi gën a rëy dans l'histoire de la lutte ci période boobu moo Khadim Ndiaye ñoo ko def fii ci stade bi stade bii stade municipal bu Parcelles Moussa Sy moom moo nekkoon de parrain muy muy presque face à face boo xam ne ba léegi nit ñi ko fàtte mu dem ca combat ba nag yàlla jox ko fa ndam d'ailleurs maa ngi dégg sax information yu ne Khadim Ndiaye moo ko daanoon déedéet moom moo daanoon Khadim Ndiaye Pape Abdou Fall moo tëggoon combat bi effectivement ñu ngi ko bëre stade Demba Diop et d'ailleurs c'était le premier combat bu dé bu Pape Abdou Fall tëgg au stade Demba Diop en 2008 Moussa Sy était le parrain ñu daal di koy daan mais euh, Moussa boo ko xool presque ci classe bi lañ ko la relevé wu plan bi classe Gaston bi 2008 mu def fa ay performance yu extraordinaire 2005 2008 waaw 2008 2007 2008 ñaari claf voilà claf bu njëkk moo doon 2005 2006 bale di 2008 effectivement mais mu def fa ay performance yoo xam ne yu extraordinaire bon mbër nag xam nga parfois da ngay am euh, des des bas vraiment mu tolloon ci benn période boo xam ne nii xawoon na ci moom bon mais quand mu ñëwaat mu ñëwaat ba ba ba ba ba daan fi amee dem ah daan fi jël bu rëy rëy rëy rëy retour ba waaye moo daal di marqué quand même retour mais li ma wax rek mooy euh, vraiment mbër la mbër la dans le vrai sens du mot amoon na ay jafe ci làmb mais nag terewu koon quand même mu garde sa dignité ba c'est un très grand champion en tout cas ñu ngi ñaan yàlla su Touba euh, oyof ci koom vraiment sëñ Touba teeru ko. Mm. yàlla xare ko àjjana njaboot gi yàlla teg fi barke. Mm. en tout cas daal làmb ñàkk ni di ko jaale le ministre des di ko jaale aussi tamit moo ami et frère Bira Sène le président du CNG. di ko mm. jaale vraiment euh, waaw le Matar Matar ba le ministre des sports di ko jaale di ko jaale ñëpp daal vraiment. di ñaan weer wi ñu nekk nii yàlla na weeru ngëneel ci noonu di weeru mucc ci noonu di weeru xéwal ci noonu. di ñaan yàlla bu muy suñ mujjeelu koor. may bal wàq ñëpp di ñëpp wàq nag. bal naa man ñëpp ak ku ma amee làq rek man juga baal naa la di balu ñëpp ak nag tey ñaan yàlla bu ma kenn toppati ci ak waaw xaadim tey loo xanaa muy ku baax di ku yaru di ku baax di ku yaru ku dal ku teey ku xëccoowul njëkkantewul ku joxe cër ay mbokkam ñàkkuñu nag Sénégal ñoo ñàkk hmm, Euh, dafa am ñoo xam ne dañu bëgg mbir mi takk ngemb mais du ñu mbër mbir danga ko bëgg necc mais fekk na du sa cër mbër ak bëgg ko du benn yàlla ko si nattoon mu woon ci mais yoroon ji koy mbër ji koy taalibe la yoroon moom laa xam ci moom comme gisa lay jox cër respecté la jox la sa wàccuwaay sooy wax moom sax du la wan euh, deretu mbër deretu kersa la lay woon. ba li nga wax wax ak moom sax doo ko wax ak moom man antaan na lañ waxtaan man ak moom ba tàyyi mais mënul am. père mën na ko ñëwal kër ga ñu waxtaan père mën na ko ñëwal kër ga ñu waxtaan kon donc Moussa euh, ay bokkam ñàkkuñu ko senegal ñoo ko mais ñaan fii mu nekk kon jóge fi fa jëm yàlla na ko gënal Moussa yàlla na nekk ganu yàlla ta bañ a nekk ganu malaaka ñu ngi fi bàyyi yàlla nañu fi yàgg lool dese fi di ko ñaanal ah yàlla def nga na métti na ma de <laughs> waaye nag diis na de benn dafa ko sant yàlla ko am ñu sant ko yàlla daal waaw sant ko yàlla waaw. génn ci la noo ko man bii laa toog ak eh, Ibou Diouf suma buntu kër bi ñu dogee ba noonu rek. waxtu reer yooyu. ñuy waxtaan ci àdduna rek. Lamine géey woo ma ne ma Moussa dafa wàcc liggéey ma ne ko kañ. kañ la feebaroon mu ne ma yàgg na tëdd nag mais dafa siiwul rek waaye yàgg na tëdd tout récemment daal la ko bi attaqué ñu yóbbu ko yaasoo yàlla dogal mu noppalu bientôt quatre jours dafa def wala cinq jours gën ngaa bëri. Hmm. nii daal laa ko déggee. mu diis lool nag wax dëgg yàlla mu diis lool wax dëgg yàlla. xanaa cër bi ma jox rek. xam nga man man cër lay jàppee nit mais du def def. Hmm. Moussa dafa naa musuma may junni. Hmm. mais daf ma jox cër boobu daf ma reg ma man cër moo a regg mais du def def. yëg-yëg man moo may suur man te loolu joxoon na ma ko ba mu mat ba ma yëg ko donte yoruma ko woon man su ma ànd ak Moussa ci cumukaay mu su ma ko conseil ci biir làmb mais joxoon na ma cër boo xam ne da daan waxtaan ak man ba di ko xamal ci làmbu am na tollaay boo xam ne dootu xëccoog champion wala wala giro seet noo amee dara ci làmb la am na foo xam ne foofa tollee seet noo amee dara ci làmb la mais dootu looy xëccoo wala looy giro Moussa suma fils la woon.